di wax ci kàddoom moom Bocar Samba Dièye euh, ñu déglu ko Oumar Mbow. CBAO moo amel Bocar Samba Dièye xaalis te il faut ngeen xam ni. expert ni muy liggéeyee mooy. day woo Bocar Samba Dièye mu toog mu woowaa waa CBAO ñu toog mu ne leen ku ne na génnee këyit mu yor CBAO génnee ay këyitam teg Bocar Samba Dièye génnee ay këyitam teg waaye nag il faut ngeen xam ni këyit yi Bocar Samba Dièye yor CBAO la ko jëlee donc këyit yépp ca CBAO la génnul feneen Bokar inventé benn këyit créé wul benn këyit expert bi xool këyit yooyu génnee rapport xamal justice ni ñaar ñi seen diggante CBAO moo amel Bokar Samba Dieye xaalis te da ko ko war a fay ba mu jeex tàkk comme wax ji frankulaay la parce que juge du expert juge day atte waaye du financier du expert bu bëggee am lu ko leer ci benn diggante boo xam ne mbirum finance la day woo ki nga xam ne xam-xamam dafa màcc ci mbir mi mu expert bi mu ne ko dama bëgg nga xoolal ma seen diggante nan la tëddee. boobu ba léegi 2008 ba léegi décision bu ñu génnee Bocar Samba Dièye moo am dëgg ci CBAO tout récemment la ñu dugg ci biir néeg génnee benn décision boo xam ne. nee nañ sabe euh, dëgg yi Bocar Samba Dièye amoon kase nañ ko mais bi léegi bay wax ak yow ni décision bi génnagul ñun mënuñu koo nangu parce que Bocar Samba Dièye am na ñetti cabinet d'avocat yoo xam ne daanaka ñëpp a gi liggéey ci dossier. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. wàllu politique ak gis-gisu soxna ay dëmb ci réeróo bi am diggante taxawu Sénégal ak waa PASTEF moom dafa jàpp ne ànd yow dong gën ànd ak ki warul wala ñi warul moom soxna si jiite alliance nationale pour la démocratie Ànd Saxal Liggéey leneen lu mu joxe xalaatam mooy tribunal d'instance bu Ziguinchor ak ni mu doxalee ci euh, ñu dal di sàkku ñu daal di duggaalaat euh, Ousmane Sonko ci liste yenn ko euh, ne yoon mooy commencé di jël responsabilité am Boubacar Dieng. bi am diggante taxawu Sénégal ak ñi bokk li nga xam ne moo nekkoon parti Pastef gën a fës bi ñuy amal session ordinaire unique ba assemblée nationale fukk ak ñeenti député yi nga xam ni ñoo féetewoo ak xalifa Babacar Sall daal di tekki seen ndombay tànk ci biir groupe parlementaire Yewwi Askan Wi Aïda Mbodj bokk ci conférence de leaders bu coalition Yewwi Askan Wi. di si àddu. maintenant nous notre principe c'est qu'il vaut mieux être mais nous ne regrettons pas des prébendes qu'on avait et qu'on n'attendait même pas. Ah, suñu nekkul leneen lu dul àndu ñun kese. nekk yow kese moo gën ngay am àndandoor yu lay gàllankoor te loolu rek la ñu mës a wut ñu ni neen rawatina ak man mi nga xamante ne bëgg naa ut nat ëllëg bu mucc ayib ci suñu réew. devenir fan ak ñaar si weeru bi ñu nekk juge bu tribunal d'instance bu Ziguinchor di Sabasy Faye daal di joxe verdict ne nañu delloo turu Ousmane Sonko si liste électorale yi Aïda Mbodj di rafetlu lu ni mel. sant yàlla ak yaakaar nag. parce que dañu jàpp ne le juge Sabasy Faye bi nga xam ni doxal na dëgg. gannaaw moom la procureure générale Marème Gueye Diop ñu gis tam union des magistrats bi ñu leen attaqué ni ñu réagiré. te réaction boobu ma ne ñu leen ko doon séentoo ci élection locale yi. Aïda Mbodj di sàkku itam ñu bàyyi Ousmane Sonko mu dellu si ay yitteem moom mi jiite alliance nationale pour la démocratie ànd saxal liggéey bëgg itam élection 2024 yi ñu fexe ba ñëpp man see bokk doom am xaaj ak seen moom itam am na yaakaar ni li nga xam ne moo di parrainage yi dina ko mën a jàll ba doon candidate. si bile élection. jërëjëf Boubacar ginnaaw euh, kon li xew assemblée nationale ak réeróo bi diggante taxawu Sénégal ak waa Pastef waa taxawu indi leeral ci communiqué euh, ñoom camarade yu xalifa Khalifa Ababacar Sall euh, ci gàttal gis ne daal waa waa yaaw di yeewi askan wi daanaka ñu ngi leen méngale ñu doon wuuree ñàkk rek tuuma gi ñu leen teg nag ñoom yeewi askan wi jëm ci waa taxawu ne dañuy négocier ak benn bokk yaakaar Aba Mbaye ni kàcc yeneen rek du leneen ñu ko Aba Mbaye Mouhamed Diop. coow yi am ci coalition bi tey mën na ñàkk ci ci ci groupe parlementaire bi parce que ku nekk am nga sa cër ba mu doy doy loo nga li la jox te war nañ mën a continuer ginnaaw jàpp nañ ni benn at moo ñu ci assemblée bi malheureusement am na ñu nga xam ne jàppoon nañ ko dañuy xeex wala dañuy def yëfu xale wala dañuy def yëfu woyadi fexe di jéem a teg yu nga xamante ne defe naa ni euh, woyadi weesuwul nga bëgg nax ku la ëpp xel woyadi weesuwul. nga bëgg a tilimal wala mu bëgg gàkkal ku la gën a mat ci nit gën la mat si jikko gën la mat si si si si lépp loo loo loo teg ci àdduna bi e je pense que loolu moo leen dal dañu doon jéem a piégé defaraat groupe parlementaire bi ne dem leen ngeen inscrire ñëpp dem inscrire ñëwaat cinquante trois députés ñu bëgg jël seeni poste jël suñu poste parce que li ñu waxul askan bi mooy que ñoom li ñu njëkk def mooy dañu bëggoon jaxe suñu biir ñu leen di jiñ la également gannaaw jàppante yooyee da di waaj a dem ca benn bokk yaakaar kese moo tax te lépp teguñu ko surtout ay ay ay ay ay kàcc ay wax yoo xamante du dëgg tey du dëgg ëllëg dañ ne woon Khalifa Sall dafay dem ci dialogue bi pour jàppale yi mu am troisième mandat Macky Sall génne def ma troisième mandat xam nga boobu ba tey gàcce boobu ak erreur politique boobu lañuy ñuy jéem a laxas lu ne. léegi ñu changé encore indi beneen kàcc ne Khalifa Sall dafay dem foofu pour am amnistie amnistie amul mu kàcc boobu daan suuf ñu indiwaat beneen kàcc encore ne. Khalifa Sall bu demee foofu dafay ànd ak Macky Sall Macky Sall yokk mandat deux ans ñu mën toog kàcc boobu amul chaque fois ñu nekk fii di kàcc tegle kàcc bu bii jeexee ba indi beneen kàcc bi saa gàcce nag sans kersa. Aba Mbaye bu taxawu. Sénégal Fatick responsable du parti socialiste ci département ba wane seen ñàkk ànd wala bokk euh, li nga xamante ne daal mooy ñàkk rafetlu gu ñu rafetluwul li ñu duppee ak beddi teg ci wet nga ga rawatina ci wàllu poste pale yi ci kanamu secrétaire général parti bi ñu fàttali ne yooyu responsable socialiste bu département Fatick doon amal ndaje week bi di ay bés bi ca Diofior Aminata Goudiaby boo xam ne daanaka mën nañ ko méngaleeg meeting ay militants authentiques yu parti socialiste ñu ci bëri nag daanaka jël nañu micro bi wax ak mbooloo mi am na ci ñoo xam ne nag dañu ñëwoon rek ngir wax li leen metti mu Diouf responsable politique socialiste la ci biir département bu Fatick. Aminata Mbengue Ndiaye nag di secrétaire général national bu parti socialiste moom tontu na ku ci nekk nag déglu na sa intervention bu baax a baax. àndandoo àndandoo boo gis ba gis biir kër sax du ñàkk mu am coow donc àndandoo ci parti kenn mun na tee coow am waaye nag il faut que ñuy comprendre ku nekk sa biir sax bu tous les nga ciy am lu la neex asamaan nag loo bokk lu mat juróomi téeméeri parti ndaje bi nga xam ne nag moom lañu amaloon ci Diofior nekkoon na loo xam ni itam ñoom ñi di socialiste yi dañ doon dëggalaat bokk gi nga xam ni moom la ñu bokk ci APR ñoom ñi nag daañu def seen kéem kattan ba li nga xam ni moom mooy collecte parrainage ñu def ci liggéey bu am solo ngir jàppale Amadou Ba muy candidat Macky Sall tànn nañu gën a taxaw te ñun xamaluñu Amadou Ba dara loo nga xam ni war naa tax ñu duñuy bàyyi li ñu nekkoon comme ñun suñu candidat mooy Amadou Ba ndaw ginnaaw Dibkor fay moo wax ci seen kàddu. foofu nga yi responsable socialiste yi nekkee ci Diofior nag ñoom li ñu bëgg mooy ñu jox kii di maire Diofior Youssou Diom gëdd maanaam nommé ko ndaxte nee ñu socialiste la boo xam ne daanaka fépp fu ñuy ma ci Sall kenn du ko fa njëkk Aminata Goudia bi Fatick RFM tàggat yaram ñu ànd ak Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. ñu ngi lay fay El Hadj bisimilah. nu dooree ak jongante xarito Sénégal ak Cameroun tey jii ci juróom benn waxtu bu tegalee fanweeri simili ca Lens ca France lay doon démb ñaari euh, entraîneurs yi di Aliou Cissé ak Rigobert Song daje nañu ak taskatu xabaar yi ñu ànd ceeg Soda Thiam. qui aurait loolu nag moom moo tax Aliou Cissé xamal ñu ne amul benn coppite ci jongante gi ñuy waajal. nous ñoo ngi dem ci tàmbali bile match ci xel bu dal Sénégal Cameroun nag match bu dul yomb la te it yàlla def na aussi ñu ñoo war a daje ci kan bi donc ñu ngi koy xalaat bu baax a baax Sénégal Cameroun nag match bu dul yomb la xam nañ ko ñu ngi koy waajal suba incha allah. Nous jouons demain face euh, à l'une des meilleures équipes euh, d'Afrique. naataangoom bu Cameroun bi moom it lu ne mel la xamle. waaye Rigobert Song yokk na ci ne moom dina ci dem ba jeex. y a pas de différence entre. Euh, amul différence diggante match suba bi ak match janvier sama joueur pare nañu ndax bëgg nañu jouer match bi ni mel dina tax ñu wane li ñu mën waaye tamit dinañu gis lan moo ñuy xaar ci kaan bi di ñëw moo tax kon euh, ñu faaw ñu jublu ci ndax ñëpp a ngi waajal euh, tout bu Sénégal biral ne li am solo jamono ji moo di jogante gi ñuy amal niki altine ji Kalidou Koulibaly. on est tranquille on euh, ci xel bu dal la ñu nekk xam nañ ne kan bi du yomb ndaxte équipe yi fa nekk yëpp ay équipe yu mag lañ amul kenn ci équipe yi nga xamante ni dem nañ ci bile kan di noyal ñun xam nañ ko ñun nag ñu xel dal na réseaux sociaux nag comme ni nga ko waxee réseaux sociaux réseaux sociaux la rek lu nekk dañ ko ci dégg xam nañu lu ñu war a def xam nañ tamit lu ñu bëgg. Euh, ñaari équipe yi leen nag daal di nañuy amal seen tàggatu gu mujj laata jongante gi war a dox seen diggante ni ki altine ji ci stade Bollaert bu Lens 20h30 heure locale 18h30 ci heure Ndakaaru mu ne woon Soda Thiam fii ci Lens ngir radio Futurs Médias. si wàllu coupe du monde jigéen ñi amagul ñaar fukki si natt gi ñu leen natt ngir ñu war a bokk ci euh, boobule jongante ci Colombie 2024 Sénégal daf ci daal di génn ak ndam. ci diggante mag waa Bénin gannaaw ba ñu dooree Bénin ci Ndakaaru ñaari bal si dara demoon nañu ca Cotonou ci ay bis bi ñu génne nag ñu daal di fay témboo ndam demul ndam dikkul daal kon jàll ci beneen pàcc qualification yi ñu waxtaanee wàllu ligue professionnelle bi wax ni dak dina door championnat national bi ñaar fukki fan ak juróom si weer bi jeexal ko ci ñaar fukki juróom-benn ci weeru mai te duñu ko dakkal ci jamono ji ñuy amal coupe d'Afrique bi ca réew Côte d'Ivoire am ay programme yu ñu taxawal ngir wéyal ko ba dara du ca euh, gàllankooru Pape Sidhi Lo keñ la ca kilifay ligue professionnelle bi. calendrier bi championnat bi defar nañ ko war a commencer première bi ñaar fukki fan juróom-ñett ci weer bi ñu nekk nii a jeexal ñaar fan ak juróom-benn ci weeru mai li tax nag ñu def calendrier bi noonu c'est pour permettre ñu commencer ci heure jeexal ci waxtu te tamit ñi nga xam ne ñoo ñu war a taxawal si jongante Afrique yi mën a waajal seen bopp mën a pare ba nga xam ne li Sénégal yëpp di jooy ne suñu équipe yi dañuy teel a dugg ci Afrique teel a toog mu doon loo xam ne au moins lu ñu leen di bu ma xëy la lu ñu leen di pousser lu ñu leen di jàppalee la pour ñu gën a am taxawaay ci Afrique dañoo boole lépp li nga xam ne gàllankoor la ci calendrier bi te mën nañu taree football dugal ko ci ñu sóoraale ko muy par exemple élection présidentielle yi ñu jëm mois de février mooy tamit Coupe bi mooy tamit lépp li nga xam ne fête la ak loo xam ne vacances la ci biir te ñu xam ne mënuñu si jouer loolu yëpp dugal nañ ko ci intégré ko ci génnee ko ci ñi suñu jongante mais sóoraale tamit ne ci Coupe d'Afrique bi xam nañ Sénégal yan bis lay joué dinañ xam ñun yan bis la ñuy mën a organiser compétition dugal nañ ko ci xam nañ aussi élection yi kañ lay tàmbali campagne bi bu campagne bi paree kañ la ñuy joxe résultat yi bu fekkee dina am deuxième tour naam kañ la a a a a tàmbali a a jeex loolu yëpp dëxëñ nañ ko ci biir ba bu ngeen xoolee calendrier compétition bi ñu leen jox di gis yooyu yëpp sóoraale nañ ko si wàllub euh, basket bi ak euh, duc bi jël coupe du Sénégal si góor ñi dafa daan démb AS Ville de Dakar juróom-ñaar fukk ak ñaar ñi am juróom fukk ak juróom nu jeexal ak wàllu rugby Afrique du Sud champion d'Afrique ci euh, champion du monde ci wàllu rugby daal dinay dóor France démb ci biir France Stade de France ñaar fukk ak juróom-ñeent la ñu am ñee am ñaar fukk ak juróom-ñett Afrique Sud léegi dafa daal di joué ji ak Angleterre ci wàllub euh, demi-finale yi Nouvelle-Zélande moom bi génnee Irlande dina daal di dajante ak réewub euh, Argentine ñaari réew yi nag si àdduna ñoom ñoo gën a xarañ ci wàllub euh, rugby muy Afrique du Sud ak Nouvelle-Zélande ñu ngi ci compétition bi ñu njort ni bu ñu dajee final dina ñu gis rugby bu mucc ayib Ajasan Gueye. football bi ngoon Sénégal Cameroun. 18h30 pousse ci ginnaaw rek pour am ndam li waaw pousse ci ginnaaw dinaa ne guro yi ma gis fi xanaa da ngay xonjamal bi <laughs> guro yi ma gis ak tàng manifesté yaa ko indi dëgg na bu weexal bi duunee de moom <laughs> mais maanaam pour conservation tiitre bi quand waaw mën naa juum nag waaw mais ñun euh, gisuma benn xër gi jëm ci ne lii ñoo ko jël daaw wala je ne sais pas moo ñaata ci ginnaaw ñaari ñaari at ci ginnaaw dañ ko war a conserver waaw liggéey xam nga comme yaay daal ñun ñëpp nag ñun Sénégal xëruñ ci noonu ci bii ñu dëgmal lu ko waral. ba dafa dafa jegeegul. Ah. compétition bi dafa jegeegul. xam nga oh, bu ñu bu ñu compétition bi jegee ba équipe bi mm-hmm. a bi. te na mm. nag. Ah. pression bi dina yéeg daal dinañ sentir que ñeneen dem défendre coupe d'Afrique du yomb. nañ ko téye de. waaw suñu poule bi ñu ne. Mm. Euh, poule bu saf-sàpp la ndax Cameroun euh, ga Gambie hmm, ak Guinée Conakry bon Cameroun moom naka jekk suñu ay wujju lañu hmm. Guinée ak Gambie ay dëkkandoo lañu te hmm. jongante dëkkandoo xare badar la du yomb du yomb jërëjëf Malal ak RFM kumpa jeex na bi ñu ànd ak dal leen nag jàmm ngir waajal fukkeelu édition concours bi di Flow Up ab séance dodition ñu ngi koy amal fële ci studio Africulture urbaine nekk ca Pikine téeméeri artiste nag la ñu fas yéene jël ci juróom-ñaari téeméer yi nga xamante ni bindu nañu wàllum thématique bi nag am na solo lool ngir ñi mën a tànn artistes yi Salamata Ousmane Diallo fekk na ab séance d'audition ñaari dugg bëccëg ñuy amal seen édition membre du jury di teewlu bu baax a baax son yi nga xam ni ndaw artistes yi daal dinañu koy envoyé ngir daal di mën a bokk ci jongantewu dixième édition flow ëpp liggéey bi nag yombul juróom fukki candidat jamono ji lañ ci daal di retenir gum MC Mo bokk ci jury bi ku ci nekk dañuy teg sa morceau déglu la waa yombul nag bi mooy deuxième journée bi déjà parce que six cent et nga war ko déglu attentivement su fekk fekkente ne gis nañ ne yow mën nañ la am nga chance pour dem gagné ko wala am nga chance pour participer si dañ lay bàyyi nga jàll. mu ngi daal di ñëwaat sax ci anam yi ñuy tànnee candidat yi. xool façon bi ngay tegoo ci musique bi façon bi ngay aborder aussi son bi loolu daf ci am solo mais dañuy bàyyi xel aussi li ñuy bind di bàyyi xel bu baax a baax li ñuy wax par rapport ak seen flow ak seen façon bi ñuy posé woo ci musique bu ñu gisee ne que joxe woo yi ñu teg yi amul benn boo ci jàll donc dañuy obligé teg la ne la quoi. Dof Diop moom it membre du la mu ngi daal di wax xamal ni ni a kawe. mais sans waru compété sept cent et quelques sons gëm naa ne deux cinquièmes yëpp ils kon donc on promet que ne cette année flow bi dina doy waar. membre yu bu fukkeelu édition flow ëpp amaat nañu lu toll ci ñetti fan ngir daal di teewlu ndawu artiste rappeur yëpp yi nga xamante ne si ni dañu daal di envoyé seen ay son laata sax nag ñuy daal di fësal téeméeri candidat yi nga xam ni ñoom ñoo fas yéene bokk ci jongante wu dixième édition flow ëpp bi. lu jóge ci musique waxtaanee wàllum cinéma ak festival Clap Ivoire 2023 jeex week-end bi ci Abidjan Côte d'Ivoire Sénégal nag am na fa ñaari prix film te Awa Mokhtar rëy réalisé ko moo gagné prix meilleure interprétation féminine ak actrice bi di Binta Traoré gagnéwaat na li nga xamante di moo di prix meilleur son li moo nekkoon seen chronique culture dig daje ëllëg ak jàmm. Touba Darou Salam Caro Prestige. Hello partenaire DSL ak seen marque bi di Dekakila direction de la santé mère enfant ak Kenkeri AAD ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jiira ngeen jëf waaye yeewi yeewante ci seen biir ñoom la yéen kaay yi yeewoo bokk ci ñoom Walf Quotidien mi xëy bind ne yeewi askan fu ne aw ngàll féete fa nañu giita ngas gi waa kër Ousmane Sonko yeeg gi waa kër Khalifa Sall yi teere ji na Assemblée nationale ba jur fak fayantoo ak ak defante bu yàqal waa taxaw ak waa yeewi askan wi lise ko nañu li xew moo di kerew ci Assemblée nationale ba ñu fay ubbi session ordinaire unique bu penc assemblée nationale bureau bu assemblée nationale bu yees beeg ni mu tëddee bés bi le jour mi ngi ñuy wax ne waaye yeew yi néew nañ ca doole lool dañoo mel na ñu ñu suqi seen laaf député yu taxawu yi ak yu yeew yi ñoo doon fantasiro ba tax Birame Souleye Diop ak compagnie ñàkk fa ay lu mu jur jamono ji journal bi nee nañu mooy waa Benno Bokk Yaakaar ñooy majorité ca bureau ba journal L'Info ni mu gisee yëf yi ba bind ko ci xët njëkk mooy guerre ba tàmbali ba dañoo zappe waa kër Xalifa Sall tax ñoom it ñu dajale fukki député ak ñeent yi ñu am ci assemblée nationale génn ci groupe parlementaire yeewi askan wi point actu ne ñu xàcc woo gis wërsëgu waay la yeewi sàllar na ci assemblée nationale tas na tasar waa Benno Bokk Yaakaar taxaw ci seen wet lu wadd ñu for ñu fore bataille ci xët mu njëkk journal bi ne bataille de leadership ba ca Tivaouane ma nga mel ni tulleeg màlle ci diggante Diop Sy ak bisub 25 février 2024 devoir historique li ci képp ku yeewoo ci réew mi kàddu Cheikh Omar Anne la ci mu njëkk direct news l'observateur nañu ca njum fa njum bi Cheikh Omar Anne yëkkate yooyu la kàddu keroog samedi ci finalu football buñ ko fa parrainé woon source nañu mu defoon mobilisation bu rëy mbooloo mu takku jóge woon fu nekk ci Podor ñëwoon wuy si ko dëkk bay réer la fa yëngu yéenekaay bi nee nañu li ko yëngal moo di ndamal Amadou Ba ci élection présidentielle yëpp ngir ndamal candidat Benno Bokk Yaakaar bi di Amadou Ba ci candidat yi fas yéene ak a ni mu ko déggale woon ñu déggee ci xët mu njëkk journal ab appel di woote bu ministre de la jeunesse Pape Malick def jëmee ko ci jeunes yi ci réew mi ak immigration clandestine moom Pape Malick dem na bay wax ndaw ñi ne nation bi tàllal na leen loxo bu leen ko abandonné ginnaaw bi mu dellusee ci jéego yi président Macky Sall def ak li mu liggéey ci réew mi ngir saafara tawat ak jafe-jafe yi jeunesse presse bi moom Pape Malick Ndour sàkku nay ci ku ci nekk ci réew mi moo xam ci pouvoir bi nga fare wala ci opposition bi ñu ànd booloo waxtaan ak ndaw ñi yee leen sensibiliser leen ngir ñu teg ci suuf mbiri immigration clandestine nee na sa mi ngi woo camarade yi muy Aly Ngouille Ndiaye di Mahammed Boun Abdallah Dionne ba ci Aminata Touré ngir ñu teg lépp ci suuf dellu si ci biir famille bu Benno Bokk Yaakaar ngir ñu àndandoo wéye li fi président Macky Sall def ñu def demi tour dellu ci journaliser ko mi ngi ñuy xibaar ci xëtamu njëkk mbir mu mu xew ca buun ga ca yëmbal benn waay buñ fa doon yuuxoo sàcce moom lañu fa dóor ba mu nañu am na juróom-ñaari nit yu ca yoon teg loxo yoo xam ne tuumay dóor nit ba mu jële cee gaañu gaañu jaara ca faatu lañ leen di toppe ñu topp ba tey xew-xewi jamono yi ci yéene kay bi ci l'observateur benn du moom pil yéenekaay bi Jóob benn dawalkatu jakartaale bu am fanweeri dafa soxla boppam wax ko benn xaritam bu ñu naan fay fay na ko jox ma 5000 mu wutal la xale bu jigéen Jóob yëkkati junni jox fay fay jël junni bi dugg dëkk bi ngir wutal ko xale bu jigéen Jóob toog ci néeg bi di xaar xaar ba yàgg mu génn di ko soññ na mu ko tontoon neexu ko ñu jàppante ba Jóob dóor ko kalaaru ba mu yoroon ci bopp bopp ba toj deret ja sànni mu jaare fa xam l'hôpital l'observateur ne nañu fa la yeewoo akob certificat médical coow li ji tribunal ba ñu daan Jóob 6 mois avec sursis Touba Darou Salam Caro Prestige hello partenaire DSL ak seen marque bi di Dekakila direction de la santé mère enfant ak Kenkeyri AAD ñoo leen doon may ci yéenekaay yi. jërëjëf euh, Mamadou Mouhamed mi fekkee lu ne réew mi ak dënn yu tàng yi jamono yi maanaam lu ne ñu xor njaay rek euh, fitna yàlla yàlla def jàmm. waaye te ñuy gàttandul ci bari moo waral ku tedd ki sëriñ Mountakha Bachir euh, jaaree ci porte parole am sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdoul Khadra sàkku ci Baye Fall ak euh, njabootug suug gi gi réeroo dox seen digg ñu daal di fexe ba dàq seytaane ji diggante bi tegaat lépp ci suuf ci suuxat jàmm jàmm joojee ak wër gee gi moo waral ci mel ni maison des éleveurs bu Sénégal ak euh, ñu mel ni ax sunu moomeel di yëglu ndax dañoo seetlu fan yi jamonoy ngóob gi ñeel tool yi fu ci mel ni Kaffrine ak Kaolack yenn ci ay nag Euh, yu sàmm si dugg ci toolu borom gerte yi ca loolee du jur jàmm moo waral foofee it ñuy woo état bi euh, luñ ca mën rek ñu def ko ba euh, borom nag yi te seen jur yooyu ba gars yi ba jariñu lu ko moy rek fitna mën na caa yeewu. fitna moom am na ba tàqale waa taxawu Sénégal ak Pastef soxna Aïda Mbodj moom waa Pastef la jox dëgg ndax dafa jàpp ne jaar sa yoonu bopp a gën ànd ak ki warul. waa taxawu Sénégal lu jëm ci tuuma gi tukkee ci Pastef ci ne dañuy négocier ak Benno ne dara wéru ca. Euh, lu jëm ci la xew ci assemblée dal ca kaw Pastef fi ñu jàppe leen ñoom waa taxawu Sénégal ne waa Ousmane Sonko euh, du ñu saf ñu doon wure ñàkk Abdoulaye ba nekkoon ci technique bi El Hadj Assane Guèye ci micro bi ci kanam tuuti incha allah pencoo geeg RFM ñu waxtaanee waqf maanaam sadaxa jaariya Ablaye <laughs> fexe ba di ba ci àddina lu lay topp ba keroog booy wàcc euh, liggéey. maanaam ci wàllu def lu baax ay ni di ko jariñu euh, waa ànd liggéeyal daara nga ca woon démb ca grand théâtre am Ndakaaru ñu koy rafetlu bu baax ci taxawaay googe waa haute autorité di wàqf également guddee bëccëg ña nga ca waaye dinañ ci ànd ak euh, ku mel ni El Hadj Amar mooy président commission supervision bu haute autorité di wàqf euh, docteur Malaw Kanté sociologue la penc mi ak ni nga xamante ne noonu lañ ko déggee wàllu def lu baax li fexe ba di bañ a jëfandikoo ni ñu déggee baat bi maanaam njariñ loo fekkee njariñ mën nga ko fee ba ngir eh, saw askan ëllëg ñu yendoo